الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله seen mbokk imaam Abdou Aziz Ndiaye bu jàkk Sacré-Cœur 3 VDN moo del si tey jeudi 5 mai 2022 di waxtaan ak yéen mu nekk sunu ojo numéro 305 ci sunu jotaay bi passé gisoon nañ ni waa Xurees demee seeti Abu Talib yóbbul ko kenn ci seen xale yu góor yi ki jàpp ne moo gën a dëgër ci ñoom ëpp xel ci ñoom ñu yóbbul ko ko yët ko ko ngir mu adopté ko ngir mu def ko doom mu doomoo ko loolu dafa nekkoon cosaan ci araab yi jamono yooyu wante nag dañuy daf leen dañ ko yóbbuloon xale bu góor bi Umar wante nag moom itamit daf leen waroon a jox yón yónnent bi en échange jox leen jox leen Mouhamed en échange maanaam ñu weccoog moom dégg dégg na déggoon nañ li leen abu abu taalib tontu tontu mu tontu leen tontu bu bu bu bu bu doy waar mu ne leen yéen di ngeen wax di ngeen may wax dafa dafa dafa nitewut dafa nitewul parce que li ngeen may wax mooy ngeen jox ma sa seen doom ma yar ko ma jox leen suma doom man ngeen rey ko loolu nitewul teelu leen fa ngeen jógee waa Xuraysh nag xam nag léegi ne munuñ am dara ci abu talib mënuñu am dara ci abu talib ci lañ décidé ne dañuy changer doxalin ci lañ décidé ne dinañ régler mbiru yonent bi euh, ci beneen ci beneen anam jamono yooyu ci lañ gën a ràññee abu lahab ak soxnaam sax ñu koy wax umu umu jamil parce que lépp lu jëm ci mbirum soxor lépp lu jëm ci mbirum xeex yonent bi fam gën a ñaawee fam gën a ñàngee toujours abu taalib abu taalib abu lahab abu lahab mu nga mu nga mu nga teew walla soxnaam sax di umu jamil mu nga mu nga teew et pourtant abu laxab ñu fàttali abu lahab bàyyi la ci yonent bi bàyyi la ci yonent bi ndaxte abu lahab abdul mutalib moo ko jur abu lahab ak bàyyi yonent bi ab abdallah ñoo bokk benn baay waaye terewul terewul ki gën a bañ yonent bi ci taarix ki nga xam ne mbañal la moo gën a moo ëpp moo féetoo ko bépp mbañal mooy mbañalu abu lahab ci yonent bi moom ak soxnaam sax umu jamil moo tax gis nañ gis nañ euh, saar bi allah subhanahu wàcce ci ñoom ak la mu ca ñoom ni ñoom seen kër mooy safara abu laxab ak ak umu jamil seen kër mooy safara ndax bon buñ bon jëmale ci yonent bi ndax soxor buñ soxor jëmale ci yonent bi abu lahab daf doon topp yonent bi fu mu dégg ne yonent baa ngi fa taxaw di oote dafay dem fekk ko fu yonent bi dem di taxaw di jàngale tawxiid di oote ci lislaam abu lahab day dem fekk ko ñu fàttali rek mbokki ne yonent bi jamono yii daanaka sax li mu nekk màkk yëpp oote bi du woon lenn lu mooy rek oo nit ñi ci tawxiid oo nit ñi ci wéetal yàlla oo nit ñi ci bañ bañ a bokkale yàlla ak kenn wala ak lenn ndaxte tawxiid tawxiid moo jiitu lépp ngëm gu wér péng bu sell moo jiitu lépp kon jamono yi mooy jamono bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi oo nit ñi ci tawhid dañu oo ci lislaam waaye dars bi leçon bi njàngale bi daanaka benn tomb la woon rek mooy tawhid tawhid tawhid wéetal yàlla wéetal yàlla wéetal yàlla bañ ko bokk kenn bañ ko bokk ak leeg fu mu taxawee nag di jàngale loolu di ko di oote ci loolu abu lahab ñoo na taxaw commencé nag di ko yekk lu nekk fu lu ñaaw rek da ngay gis day jël di ko teg ci ko yonent bi fu wax ñaawee yëkkati na ko teg ci ko yonent bi du teggin ci ñun du teggin ci ñun jullit ñuy répété wax yu ñaaw yooyu abu lahab doon teg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li tuuti ci lim doon gën a def mooy ndigal ndigal yi mu doon joxee ñuy sotti mbalit ci bund kër yonent bi am na sox soxna su ko doon def waaye ci ndigalu abu lahab ci ndigalu abu lahab abu lahab moo doon moo doon moo doon moo doon manager loolu maanaam su ma ko mënee waxee noonu waaye yonent bi moom chaque fois su jisoon mbalit mi rek daf koy daf koy an ne eh waaye doomu abdul mutalib bii moom ban xeetu ban xeetu dëkkandoo la ndeysaan yonent bi loolu loon wax papaam ja abu lahab bon ci moom soxor ci moom nan waaye ay doomu doomu abdul mutalib bii ban xeetu ban xeetu dëkkandoo la abu lahab pour wane pour pour wane mbonam dëgg dëgg dëgg firnde mbonam dëgg dëgg dëgg mooy ba mu joxee ndigal ay ñaari doom yu góor jëkkëru roq ya di doomu yonent bi ak jëkkëru umu kalsom doomu yonent bi jox leen digal ne nañ leen fase kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laataa ñu koy yónnee amoon ñaari doomam yu jigéen yu doon sëy ak ñaari doomu abu lahab ñaari doom yu góor yu abu lahab ñu ngi doon denc kenn ki roqaya doomu yonente bi keneen ki umu kalsom doomu doomu yonente bi waaye gis nga ci xeex bi abu lahab ne ñaari doom yu góor yi fase leen leen xoolal rek xale yi góor yi itamit fase leen ci la yonent bi plus tard may Roqaya usmaan may ko Ousmane bi ya génnee àddina mu daal di ko may Umu Kalsum kon Seydina Ousmane Ousmane Ibn Affan loolu moo tax ñu koy wax ñu koy dàkkantelee zul zul nuurey ni borom ñaaru leer yi mooy Roqaya ak Umu Kalsum kon foofu la foofu la euh, kii jóge foofu la euh, dàkkantelu noore nooree nii bi jógee ñu tudd Ousmane ñu bari ñu leen wax nooree nii nooree nii kon loolu loolu mooy cosaan bi mooy Ousmane Ousmane Zul Nooreeni usmaan boroom ñaari leer yi ñaari leer yi mooy ñan mooy ñaari doomu yonent yi nga xam ne yëpp denc na leen Roqeya ak Umu Kalsum waaye mbokk yi gis nañ kon Abu Lahab ni mu bone jox ndigal ay doomam nee nañ fase doomu yonent bi Abu Lahab ba léegi ci mbonam ak soxoram ak mbañ yonentam bi yonent bi yonent bi doomam bu góor bi bi mu njëkk a am Abdallah dafa teel a génn àddina comme doom doomam yu góor yëpp comme ni ñu ko xamee daanaka kenn kenn gudd ci fan ñoom ñëpp daanaka tuut tànk lañ lañ lañ lañ génn àddina ki ci jiitu moo Abdallah bi yàq bi ko borom bi eh, eh, jëlee Abu Lahab daf doon wër Màkka di wër màkk di jubile kontaan di yëgle di yëgle dee gi di yëgle di yëgle eh, génn àddina Abdallah doomu yonent bi ak kontaante kër gu nekk mu dugg fa dem ci marché yi fu nekk nan Muhammad amatul ndono Muhammad amatul ndono doom ja dee na kontaan di jubile Abu Lahab def na loolu abu lahab def na loolu doomam doomam ja muhammad ñu fàttali toujours ne muhammad doom la ci moom parce que mook baay mu yonent bi ñoo bokk benn baay waaye bon ana bon ana bon loolu yëpp bañ yonent bi yooyu yëpp bañ lislaam waaye mbokk yi soxor yi yemul fii de soxor yi yemul fii ndaxte abu lahab soxnaam sa di Umu Jamil daf ko feelu daf ko doon feelu moom tamit ci ay mbiram incha allah suñ ci dajee waatee ñu kontine gis Umu Jamil moom moom itamit lan la indi ci wàllu soxor ak ci wàllu mbon ak fan la yonent bi tamit mujjee di mujjee ak waa waa Xurees subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahuma salli ala seydina muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim